yi fasoon na samp seen mbër di Ousmane Sonko ne mooy seen candidat ci atum 2024 Walf Quotidien ne waa Pastef nee na loo tere day neex moo tax dañ koy def ba xam lan lay saf lu waral ñu tere loolu lee moo tax mu ne dinañu samp Ousmane Sonko seen mbër ci week-end gii ngir yóbbu ko ca présidentielle atum 2024 ndaxte gëm nañ ni moom moo mën te moom moo ëpp doole gatsa gatsa la ñu wootee ginnaaw kayit gi ala Alassane Sall génne moom gouverneur bu Ndakaaru gouverneur yéeni kaay bi di Sud Quotidien Ousmane Sonko samp gin ko waroon a samp le 15 gouverneur nee na déedéet waaye waa Pastef fan ngankoon ngankiwun ko ba tey ji ña ngi koy seex ndaxte haute autorité ba nekk ca boobu parti partis ñoom nguddo boobu nee nan li toll ci 46 département yi nekkee fii ci réew di Sénégal di ay tund toll ci ñeent fukk ak juróom benn ñoom ñëpp nee nan Ousmane Sonko moo mat tudd moom moom mat tabaski te nag mooy seen candidat yéeni kaay bi de la mandat investiture ak anniversaire Ousmane Sonko boobu leen ñu jàppale ci week-end nee na daal tension mën na am ci week-end gi ci réew di Sénégal te lu la ñuy bañ mu xewati moo tax ñu saboté investiture ak anniversaire bu Ousmane Sonko waa Pastef ne ñoom loolu duñu ko nangu dañ koy bañ ba tëdd ci naaj wi ci yéenekaay bi di yor yor autorité de régulation bu Pastef ne Ousmane Sonko tànn nañ ko ngir mu doon seen candidat ndaxte moom mooy ki fi ne ñeent fukk ak juróom benn ci ay tund yi nekkee ci réew di Sénégal ak diaspora bi ca bitim réew nee na Ousmane Sonko la ñu samp ngir mu jiite réew mi ci atum 2024 ñu ne li jëm ci aye gi ñu aye naan Ousmane Sonko mënuta daje moom ak i nitam loolu jalgati la ci wàllu ki yoon ndaxte ba tey ji fi ñu toll amul lenn loo xam ne mooy te Ousmane Sonko doon candidat ci atum 2024 l'observateur ne Sonko ak investiture am googule gouverneur aye na ko waa Pastef tontu ko tontu bu weex xatt moom kooku lay di gouverneur jàpp ni kàddu yooyu le ay caaxaan kase la ci yéen i kaay groupe Futurs Médias bi ñu ne investiture bu Ousmane Sonko kenn mënu ko aye dinañ ko def teg ci atum 2024 dinañ samp seenuk mbër mi Sonko tey jii ci ngoon tey jii ci ngoon la fa yéene def ak déclaration wax ak patriote yi joxoñ leen wan yoon la fa yéene jaar yoon wa mu leen fas yéene jaarale moom la ñu yéene kaay bii di enquête di wax mooy candidature bu benn Bokk Yaakaar président Macky Sall fa mu joxañ la bëgg gaay yi jaar ci yéene bi waa benn Bokk Yaakaar yëpp jël seen ëllëg jox ko kii di président Macky Sall waaye joxañ bi yëpp ak gët yëpp ña nga jëm ci Amadou Ba loolu enquête wax ginnaaw gësu bu mu def waaye nag kenn ci kàngam yi benn Bokk Yaakaar nee na ki ñu tànn daal dina ko mat dina ko doon te dina doxee nanu bëggee waaye bëgg ko lu wóor la waaye mën ko lu jafe la ndaxte kii di président Macky Sall ak candidature boobile bu tànnee ku yi bëggul dina jafe de yéene kaay bi di suusu wallaahi dina jafe bu tànnee ku gaa yi bëggul ndaxte risque bi mooy xalifa ak kii di Karim Wade bu dee ni Macky tànn na ci bennoo kun bëggul député yu bennoo yi mën na dem ba ci assemblée nationale sabote ki di Khalifa ak kii di Karim bu nu jàngatee galanu waxu kii di Moundiaye Cissé bu ONG 3D ndaxte assemblée nationale kàddu gu mujj gi foofu lay amee ginnaaw dialogue bi ñu woote woon. waaye nag balaa nga naan naam dafay ne ndaxte ba tey ji assemblée nationale ndaje man fay wax app ganu ko jàpp ba tey ji waxaguñ ñu ko. comme mbir mi coolo rek waaye dara sotteegu ci waaye war na ñoo lettu firuñu ngir ñu xam fa lu ñu jëm. waa parti socialiste nag yi jël buum yow seen bopp jébbal président Macky Sall am na ci ñenn ñoo xam ne ña ngay bañ bokk na ci kii di Abdou Khadir Meng. secrétariat exécutif national bokk ci bureau politique bu parti socialiste nekkee ca coordination yee nekkee ca diwaanu Tëngéej moom Abdou Khadre Meng moom nee na waa PS danoo war a am candidat te nag du benn ndigal loo xam ne joxe nañ ko ngir Macky Sall di leen tànnal kii di candidat Mamadou Lamine Diallo bu tekki na ci yéenekaay bi di Walf Quotidien Macky Sall gëmul kenn ku dul boppam candidat Benno bi muy wax la mu bëgg mooy candidat boo xam ne day mel ne Dmitri Medvedev ba nekkoon ca Russie ginnaaw ba ko Vladimir Poutine tegee mu def mandat am Vladimir Poutine daa ñëwaat jël jiitewaat réew ma maanaam Macky dafa bëgg a ab candidat boo xam ne 2024 day falu 2029 mu delloowaat ko réew mi mu wéy duñu jiite dil boobu la Mamadou Lamine Diallo Walf Quotidien jëm ci candidature bu benn Bokk Yaakaar candidat yooyu nag sakkan loolu bari yéen i kaay bi di l'Observateur ne bari na ci ay candidat yoo xam ne ñi ay chef d'entreprise ñii ay député ñii ay lii ñii ay maire ñi ay caaxaankat bari na ci candidat yoo xam ne ay candidat wu tappale kese lañu la ñuy wax gëmuñu ci lenn yéen bi di wal Walf Quotidien ne candidat yooyu toll nañ ci juróom fukk sakkan loolu bare déclaré seeni candidature waaye nag baatu déclaré boobu da ci am solo ndaxte nag wax ko ak mën ko ak jëf ko bari na ci ñoo xam ne danaan ay candidat rek waaye dañuy soob laas ne candidat yooyu le bokk na ci kii di Anta Babacar ngoom bu Sedima moom nee na candidat la ma ni cee anta bu faloo xanaa ni dañuy ndekkee ginaar di ko añee di ko reere boobaa xanaa xale yi du dun bëkkati gàlloo cay di dem sa tugal yéene kaay bi di direct news dégtal ñu kàddi ki di maritow ñaan ne mbëkk gi ñuy mbëkk gàlloo cay ci yéene kaay bi di direct lu daw yaram la waaye lu tislu la xale yi di mbëkk gaal yi di dem rek di dee mu ne laaj bi ñu war a laaj mooy lii lan moo ko waral ak yan pexe lañ ci war a teg ngir xale yi am dund ku gën ba bañ a na mu dem feneen mu ne mbëkk gi ñuy mbëkk gaal yi dem ca tugal ay ata ngi ñu koy def loolu li ko indi mooy sunu kilifa yi dunoo lajji ci taxaw gi ñu waroon a taxaw ndaw ñi jox leen xëy jàppale leen ba mën a dund fii ci réew di Sénégal mu ne war na nañu def lépp takku def jatu ñu soccet ngir mën a jàppale ndaw ñi ban gëm ni Afrique fii mbir mi mën na fi baaxee du fii la lépp bone waaye du fee la lépp baaxee loolu di kàddu yu Mary Teuw Niane kàddu yu Antoine Félix Diome ñu ngi ci yéenekaay bi di La Tribune ginnaaw ba juróom-ñett ci doomi aadama ñàkkee seen bakkan juróom fukk ci ay rescapé ca bël ba ca diwaanu Ndar Antoine Félix Diome ministre de l' intérieur moom weddi ñetti téeméeri migrants yi ne mbëkk nañu gaal yi doon dem ca tugal weddik Antoine googule nag du bett kenn ndaxte di fàttali ni am na fi ab ministre de l' boo xam ne biñ koy dog fal ñeenti téeméer ak juróom fukk dañ ne danoo des ci géej gi ginnaaw ba ni mbëkk gaal yi journaliste ya ko doon laaj lam leen tontu woon mooy jeune si faaw venu pour compter des morts maanaam tooguma si seen kanam ngir di wàññi ay néew ministre de l' boobu mooy kan ku ko xam wax ma ndax man damay laaj